saaxu AJS laa bëgg mu déglu tës bi. Mm. Mm. anam suñu xarit boobu. mi ngi fii euh, ndax tës bi alaaj dafa doy waar. Mm. xale bu góor bi xale bu jigéen bi treize ans la am papam nee na treize ans. bàjjen bi nee na quatorze ans. mais ci papa ji la ñuy sukkandiku taxaw fa ndax nee na treize ans la doom ji am. alaaji xale bi. waaw dafa am benn dëkkandoom boo xam ne daf ko proposé mbëggeel treize ans. xale bi ni ko man am naa ku may bëgganteel. treize kooku ne kon naa doon sa mag. Hmm. ñu doxale diggante mag ak rakk. ba benn jour xale bi war a dem place am su magam. waaw waa ji ne ko jaaral sama kër ma jox la benn tissu nga ñawaaleel ma ko. xale bi ci confiance bi dem. alaaji ba mu demee ca kër ga kenn nekku fa nee na ci la ko oh, ba ma xëyee ca lal ba oh, oh. forcé ko séq ak moom. ba mu demee bay jamono gisul mbaax mu dellu ca waa ji ne ko dama ëmbate yaa ma ëmbal mu ne ko boo ma ko waxatee ma sànq la hmm. sànq boobu nag mooy tës bi hmm. ndax xale bi dafa mel ni waa ji nag mujj na ko traumatisé ndax dox na di dem marché ba yàgg benn waaye intercepté ko jox ko loxo ñu gëlëmal ko pompe ko andi dakaar ci benn bâtiment tëj hmm. ah benn maire moo ko fekk génnee xale ba toog ca buntu jumaa ja ca la ko benn mbokkam gis yóbbu ko ci beneen mbokkam mu fexe ba yóbbu ko jébbal ko ay mbokkam. Hmm. ba ñu yóbboo hôpital ci lañ leen xamal ne effectivement xale bi dafa ëmb mi ngi ci deux mois et quelque. Hmm. mais alaaji problème bi mooy waa ko def loolu lépp. Hmm. mi ngi doxantu. ca dëkk ba. kenn jàpp ko. entendre nañ ko bàyyi ko. te mu ëmbal ab mineur boo xam ne 13 ans la am te li ci gën a grave mooy mineur bi nee na daf ko forcer relation même bu dul woon forcer viol la mais da ko forcer ba pare kidnappé ko andi ko Dakar ci loo xam ne nag mën nañ wax ne nee naan àndut ak moom ba muy ñëw. àndut ak moom àndut ak moom da ko boole chauffeur bi rek ni ko yóbbul ma ko Dakar. Ah. Hmm. ñu déglu ko xaadim. ay ca kii dama jàng métti sam place mag hmm. ma jàngi métti nag foofu la ma daan gisee hmm. atelier bi den def foofu lay fréquenté daan na ma doxaan na nak nag ma lànk bi ma ma lànk tamit tërëwut ba léegi daf may topp fu ma jëm damaa laan ba da fekk ma nekk am kuma ma nekkal joxe ak moom ay kàddu ba pare mënuma mm. duggaat ci leneen mm. léegi nag bi ma doxaanee ma lànk mm. mu jàppe ma comme sama comme mag rek di ñëw sama place mag jàppe ma comme mag. lu mu la doon wax foofu. jàppe ma comme bañee quoi jàppe ma comme rak dama laa bëgg nga bañ lu mu la wax foofu moom. moom bi mu ñëw bëgg ma bañ waxuma dara nag waaye dafa ñëw wëlbatiku ah, ànd ak man jàppe ma comme mag di ma xelal wax lu nekk. ba to mu ne benn jour mu ne ma booy gont ci jaaral sama kër nga yóbbaale ma sama yére defaral ma na ko waaw après ma jaari seen kër fekkuma kenn seen kër sax moom dong laa fa fekk ma ko fekkee ma dugg sa ma duggee sa néeg bi mu ne ma am yére bi si laa jëre si la ma xëccee sànni ma ci lal bi te bi ma yuuxu mu ne ma boo yuuxoo dinaa la rey te na la leen sa bopp ngay siiwal force ma ba tëddee ma bi ma tëddee nag si la ma bàyyi ma ñibbi bi ma ñibbee nag ci laa ci mu mujjee bi weer bi dee si laa mujjee gi samay réegal wax naa ko ko nag bi ma ko waxee moom doon ceetal fan yële mu ne ma man damay ceetal ta lu may am bu ma ko waxaat ma ne ko yaa ama ëmbal ma sama yaay laajee dinaa ko wax mu ne ma ëmbaluma la bu ma ko waxaat te boo ma ko waxaatee danga xam loolu si fekk rek na leen na yaa ko teg sa bopp ñi def noonu def noonu ba mu bi commencé lii feeñ ma waxaat ko ko moom mu xamal ma ne man boo nungoo de mën naa laa luyeel Dakar man ko man dem ma Dakar fii laay toog sama wetu yaay musuma génn fii laa xam man mu bàyyi ma noonu bi ma yóbbu na daf ma forte léegi amu fa waxoo ko sa yaak sa papa. waxuma ko ndax moom daf maa menacé daf ma menacé moom la wax. maa menacé ne ma ba koo taxaw wax ko xamale naa la rey te ma la reyee du mujj fenn. Mm-hmm. te dëgg man na maa rey ndax ndax ma yóbbu tamit kenn gisuma. Mm-hmm. maa ngi moom dong la woon. Mm-hmm. léegi acca bi nga xëy yow nga xëy. léegi ma xëy la yóbbu mu bàyyi ma noonu bàyyi ma noonu. léegi ma xëy ba talaata. ma war a dem jëli dugg sama yaay. bima may duk dugg yoonu marché baa ngi nii fi soriwut bi may dem ñëpp seen nañ ma ma dajeeg benn waaji sol bolog bu weex kooku kilifa la sax mu jox ma loxo nuyu ma maa ngi teg saw bi ma nuyoo nag man xamatuma fu ma nekk ci laa tege saw marché bi mu ne ma fekk ma poste police ba ci laa toppee si moom mu yóbbu ma poste waaye ma fekkee ma ko fekkee poste police ba di may gëlëm gëlëm man xam naa ko te tey su ma su ma yóbbuwoon te gisuma ko dinaa xam ne moo ma yóbbu ndax moo menacé woon na ma dinaa la sànni Dakar léegi bi ma ko xoolee laa ne ko laa xam ne laa xam ne moom la moo waaji la. ki waaji la ki ki ki ma tëddee ki ma tëddee waaw ki nga xam ne moom ma tëdde ba ma am bu te noonu nungu see feeñ. ba pare nag nungu maa jox sax turam. moom daf maa ne daf maa ne Idy Seck rek laa tudd. léegi ma duggee foofu. menacé waat na ma tamit avant nee na ma. maa ngi la yóbbu Dakar boo yeggee Dakar de na la leena boot boo yeggee ba nu ba yóbbu la sa néeg ba la lu yër ku la fa fekk bu yeboo nga ne ko sama yaay damaa génn sama papa gaañu. sama yaay ma sama yaay génn ma. te mm-hmm. boo ñëwaatee xamee naa la koñ ba. Mm-hmm. moo tax ma demee xa bi ma yóbboo nag si la ma pompé nag fu ma nekk. Mm-hmm. moom moom demul Dakar moom. xam naa porte oto bi tëju. ma xam ne génn na. moom fu mu ko ba ma ko gisee laa xam ne man jàllaaba bu weex la sol. léegi ma yeewoo man maa yeewoo si benn immeuble ab itaas. si kaw man foofu mosuma faa dem xaw ma fa sax. ba fa demee benn meer moom fa yee si laa ne bëreet yeew mu nekk benn néeg bi am saal de beeg lépp te la ma meer bi loo fiy def xale bi ma ne ko man de fii xaw ma fi mooy fan mu ma fii la Dakar dañ koy luyee bu fekkee amoo luyaas bu fekkee luyoo fi génnal sa jàkka ja nga toog fa sa jàkka ja sa laa génne bi ma génnee sa jàkka ja foofu laa toog di jooy foofu laa toog di jooy. foofa xam xam am na ñoo fa xàmmee wala. foofu man xam man Dakar xaw ma fa kenn. non ci biir néeg bi nga fa nekkee am nañu la. néeg boo néeg ba damaa yeew rek yem si meer meer bee ma yee sax am meer sax moo da meer ba xaw ma ko. fa laa toog di jooy sa jàkka jooy sa la ma meer ba ne dama nga toog fa toog di jooy ba ku yóbbu ay fekk ma fa. ndax ma fa fekkee ne ma yow xale bi looy jooy ma na ka dara mun na ma yaa ngi jooy te kay dara la ma ne ko doon dara mun na ma lan la ma ne ko fii fan la mun na ma fii dakaar la nu lu la fi indi ma ne ko nii laa gis mun na ma nan dem fii te bi am na sama sama benn mbokk bu fa nekk bi ma yóbboo ci ba léegi man nangu maa ñëwaat xam moom dafa maa waxoon dama boo fi ñëwaatee ma rey la loolu la ma xamal te ma ñëwaatoon tamit te léegi tamit mën na maa rey mm. ndax moom loolu la ma waxoon naa ñoo bokk benn koñ chaque jour moom may gis mm. léegi moom dama la yóbbuwaat am na ko dem ma koñ bi mënuma faa demaat noo leen naa la yóbbu naa la yóbbu sa loxo yaay bu fekkee sa yaay la génne wala fekkee nu too dem koñ bi ndaxte ëmb bi naa xam dara mën na ko mën demaatuma ci dama bàyyi saar forcé nag bu indi ma suñu kër waaye bu ma indee ba léegi mënumaa tëdd ba nelaw sax moom dafa maa dama lay rey mhm. yàgg na maa rey léegi moom moom ñëw na seen kër fi mas na la fi seet si mooy ki nga ki la woowoon këram moom mos fa ñëw suñu kër. yow mos nga booba benn ñaata yoon nga dem. mosuma man seen kër benn yoon boobu ma tëddee laa fa mos a dem. Mhm. ba ma fa demee la ma tëdd dama mosuma xam góor. kon moom avant mu lay avant mu lay yóbbu. donc fekkoon yow ngeen ànd. fekk mu tëdd ma bu ma ëmb ko ëmb bi. Mhm, moom mu bañ. li ko wax tax nag. Mhm, naa moo mu ma koñ bi mënoo du ma la fi bàyyi. minaas ma ne ma dama la yóbbu Dakar ma ne ko déw ma bi ma ko waxee sax nanguwuma di yóbbeewu ma sama coobare ndax fii laa sangu ba set dem sama yaay di jëli ndugg sax su demee jëli ndugg man foofu nag la ma forcé nag boole maa kooku ma nuyu nag xamul lu mu nuyoo. sa yaay musul musul la ko laaj yow musul laaj comme ni nga mel ak yooyu musul la ko laaj tey musoo ko wax. sama yaay musuma kaa mm. koo wax kenn. musuma kaa wax kenn ndax moom daf maa menacé woon ba léegi nii sax ñu ma maa wax dara. Mm. ñu ma maa dara ndax moom li ma wax te kon bi bari na ñu fii rey samay morom yoo xam ne ñu ngi leen fii rey te mujj fenn mm. moo tax nangu maa wax kenn leen ba léegi damay tëdd rek du ma wax kenn leen. te li mu wax bu ko neexee mu ko ndax nam def ba yóbbu ma mën na ko def noonu ba dem si sëriñ ba mu ray ma te xam man loolu rek laa ragal moo tax. jamono yi nga yëgam daa nga dem hôpital. musuma dem man hôpital musuma faa dem. jour bi nga ñëwee rek. jour ma ñëwee ren ma yóbbu hôpital. lañ soog a xam ne say mbokk soog a xam ne yow boobu da nga am. Mhm. waaye man hôpital musuma faa dem. musuma ba ma juddoo ba léegi musuma dem hôpital. moo waxee sama dëgg musuma dem hopital koroog bu ma ñëwee rek lan ma yóbbu hôpital. Mhm. ñu ne. médecin bi xamal leen ne kii dafa ëmb. Hmm. wante man mosuma dem hôpital. ëmb bi daal jiitu na may menace man mënu ma kaa xool tax hmm. mënu ma bokk moom police bi ñu nekk sama mënu faa bokk ak nekk. Hmm. ndax li mu wax xam naa ne dina ko ndax capable na ko. mu nee na ma dina ma rey te yàgg naa ray lu tax xam damaa xam jikko yàgg na maa rey yàgg naa moom mu ci boobu moo ne ma yàgg na ma rey te ku ma rey doo si feeñ te bu ma la reyee lii su ma si muccee dinaa la rey ndax yàgg na maa rey. ok c'est bon loolu la ma xamal man daal ma amoon ku ma jàppale ma si daal moom. dëgg yàlla ndax dina ma nee na dina ma rey te xam naa bu ko pëlis tëjut dina ma rey pëlis fi mu awoon moom yoon wii awul yoonu tëj ko. ku si dimbali woon nag moom mu dimbali ma man moom bu ko tëjul bu ko moom koñ bi daal moom. ku si mën a jàppale muy yoon ak man di doon. ma si yokk mooy li papaam wax. mooy vérité bi. na xale bi nee na moom moo ko kidnappé menacé ko moor. tëdd mu am deux mois avant koor xale bi wokkul dara mu ragal mu ne ko dama lay rey ndax damay rey sa moroom moom du faram yorul numéro yorul daraam mais ménagé na ko ba fu mu ko wooree xale bi daw wuyu ji ko waaw bi loolu amee moom mënoon na ko ba fii mais mu dem sànni ko dakaar xale bi nee na bi muy jóge fii mardi la fi jóge yaayam toog ñaak yaayam ñoo toog même place marché ñi di ko xaar di ko xaar di ko xaar ba 11h gisuma ko ñu ànd ñëw fekk ñu ko fi. ñu wër ko mardi ba jeudi Baye doog ko for Dakar. foru ko sax dañ ko ko. moom moom diggante bi mu réeré. waaw ñaata kii la app bi tey. tey la tey la une semaine mardi ba mardi. léegi moom ëmb bi kañ kañ ngeen ko yëg ci moom. bin bin bi mu ñëwee alxames man ma yóbbu ko hôpital. ëmb bi ñaata moo la. ëmb bi nee na waan bi nee am na deux mois. am na deux mois. kon foofu nu mu demee noonu leeralal rek. léegi moom xam nga comme moom xam nga ñëw nga wax foofu. waaw leeralal foofu rek mu leer. da ko tëdd ba pare da ko siif ba pare. moom daa ànd na moom. waaw ba moom moom moom moom xale bu góor bi. xam na ne ndaw si dara dal na ko. mu ne ko carrément dama lay sànni ji Dakar. moom moom xale bi nee na waa ji wax na ko dama lay sànni ji Dakar. léegi si diggante boobu la moom waxu ko ñu léegi avant mu koy wax léegi moom mu dem sànni ko dakaar léegi non non dañ doon wala lu xew. moom du faram. avant moom mu koy police woon na faru xale bi. waaw léegi comme ni nga waxee ni avant ñu moom moom ni nga waxee avant ñu koy kidnappé di ko yóbbu. moom jër na lor. bi ngeen ñëwee ngeen soog a xam ne moom. wala waaw parce que sequ ñoon dara avant boobu. mais moom du faram waaw moom du faram. faram police woo na ko. Mm-hmm. faru xale bi ñëwoon fii ba ba ñaan ñu ko ñun ba nu wax suñu waxi jullit mm-hmm. moom police woo na ko ba mu wax li muy wax. Mm-hmm. moom du faram. nee na moom tey la ko gën a bëgg ndax moom mooy génn te yëgutoon loolu yëpp. Mhm. waaw parce que moom dafa jabar la bëggoon. Mhm. kii nag moom du faram du dara da koo woo doon ménager ko ba fi tam fu mu ko woo mu fekk fa. mais sànni Dakar bi man moo ma jaaxal. waaw mais est-ce bi ndax faram bi ko wala kii ko yóbbu ko ci ëmbal. kii ko yóbbu. Ah, faram waat na police. mel ni génnoon nañu avant. déedéet génnuñu. xam nga diggante nee nga ëmb am na 3 mois. génn déedéet 2 mois ah? génnuñu. am na mois. waaw te léegi bi mu ko yóbbu après bi ngeen ngeen soog a xam. voilà mais génnuñu tamit. Mhm. ndax ndaw si xale bi jigéen bi faram ñëw na fi ban wax waxi waxi jullit ba far ni moom day wuti bu amee ñëw ñu may ko te far yi police woo na ko ba enquête ko moom ba mu set kii moo ko kidnappé bi muy tëdd moom da ko da ko da koo teg ba waa bu njëkk ba waaw avant mu ko yóbbu da koo da koo menacé ni ko dama lay rey waaw xale bi fi mu ne nii bu gisee waa ji day daw di yuuxu ndax rey bi mais boobu moom aussi lu tax waxu ko boobu moom xam naa rek rey bi moo tax de waaw rey bi xam naa rey bi mu ci tudd moo tax ndax fi mu nii bi mu demee Dakar ñu for ko dani moom du ñëw ndax nee na bu ko gisaatee si koñ bi da koy rey après te moom nee na gis na nit ñi dee te xamul leen rey du ñëw mu koy rey mais xam nga loolu ñaaw na te boob ba tey mardi jeudi ba tey ñu ngi dem police démb la ñu jox rendez-vous nee nañ kooku ñëwul enquête bi ñun ñu laaj nañ ko ba pare nee nañ saye moom jaratul muy wax léegi nee nañ chef si de muy wax mais boobu ba tey jeudi ba tey moom ñaata at la moom fukki at ak ñeent waaw moom la am. loo mooy xanaa ñu dimbale ñu rek mm. bu dee yoon moom lu mu wax mu li ñu li yoon wax yëpp ginnaaw laaj nañ ko góor ki laaj ko jigéen ki li yoon tëral rek ñu dimbale ñu si mm. mu continuer mm. ma ne noonu laa bëgg rek yoon rek def li mu li mu laaj ñu continuer. moom daal moom waxu leen daal mës na génn waxu leen lan. déedéet moom moom du faram moom. waaw du faram moom. moom moom xanaa ménage rek. mais du faram waa ménage ba ànd ak moom. waa ba pare doo koo jël yóbbu. mais moom du faram moom. far kii bi police bi woo na ko ba mu ñëw ndax far moom carrément jabar la waxoon bi mu ñëwee fii tam fekk na fi yaayam mm. ñu waxtaan ñun ñëpp mu ne waaw day liggéey day dem ay Kolda ak yooyu di ñëw léegi moom koro bi nga ko laajee kuy safar wax na ko ñu woo far wi far bi ñëw na pa ñëw na ba wax moom ne tey sax la ko gën a bëgg bu coow li dalee ne ku ko may mu jël mais nag ñoom kii moom kii ko ki kidnappé ba def ko lu ñaaw lii moom lañ bëgg a lijjanti waaw ñun daal loolu loolu lañ si lijjanti moom